nekk ci loxoy daayira muqaddamatul xidma ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu siwaat nañu ak yéen ci jataayu xam-xam yi ñu baaxoo def di ko ànd ak yéen ngir laabiréer ci mbokki jullit yi waaye tam nafar ci fàttaliku ci suñu mbirum diine tey jii nag di benn ci jataay yooyu mun nañ ne di jataay bu am solo boo xam ne warees na fee mën a jële njariñ warees na fee mën a nafare bindu yu bari muy jataay boo xam ne dafa jëm ci wàllu diine ak suñu wàllu nekkin muy suñu wàllu dundin muy lu jëm ci wàllu fas ab sëy tey moom lañ fas yéene waxtaane yaakaar na ku ne fas ab sëy nag tudd nga diine waaye tudd nga itam nekkinu doomu aadama ndax mooy li nga xam ne mooy tax doomu aadama di man di yokku di man di am production bu bari ngir mën a taxawu ci dund gi tey suñu jotaayu tey loolu lañ bëgg a waxtaane waaye bëgg cee waxtaane itam tomb boo xam ne bu mat a leeral la mm, ab sëy ni ko charia séqe ak wàllu addina loolu mooy tomb bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane seex ko itam nag ay kilifa ay boromi xam-xam ñoo xam ne kuñ ci tudd dañ xam ne seen taxawaay ci fànn gi ñuy waxtaane lu lu fés la bokk na ci jataay bi ñi fi teew di sëriñ imaam sëriñ Mbàkke Abdourahman di borom xam-xam di faqih di gëstukat bokk ci membre yi daayira muxaddamatul xidma waaye bokk ci membre yi daairatu rawdu rayahin di kuréel gu mag googu nga xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaqa Euh, yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te may ko wér ñoom la dénk lépp lu aju ci xam-xam ci biir dëkk bi sëriñ Mbacke Abdourahman moomu bëgg nañoo séq ak moom jataay bi incha allah waaye itam fas yéene koo séq itam sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno sëriñ Abdoul sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno di président commission culturelle bu daayira Muxaddamatul Xidma lépp lu aju ci xam-xam ci biir daayira Muxaddamatul Xidma moom lañ ko dénk mu koy saytu mbooleem waxtaan yi ñu fiy def mboolem yi ñuy bind ak lépp lu aju ci xam-xam ci seen loxo la nekk moom itam teew na fi teewal fi daayira muxaddamatul xidma gi yëpp ñoom itam ñu am ci pàcc bu rëy ci li ñu war a waxtaane luñ ci war a leeral kon loolu mooy teewaayu sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno moom waaye itam mu teew fii itam kilifa gu mag goo xam ne buñ ko tuddee danañ xam ne ab teewaayam ci tomb bii ñuy waxtaane mënta ñàkk faaw mu man mu àddu ci muy président Serigne Niane Serigne Cheikh ñaan président Serigne Cheikh ñaan mooy président tribunal départemental bu Mbacké euh, moom teew na ci jotaay bi fas yéene ci àddu itam yaakaar naa ne ku tudd ab sëy da nga tudd li ñuy wax euh, état civil te état civil ku ko tudd itam da nga tudd wàllu yoon kon moom moo fi teew ngir leeral lépp loo xam ne aju na ci wàllu yoon ci wàllu sëy ni ko yoon tërale ak yan matukaay lañ ci mën a jël incha allahu taala dina ko leeral waaye mu teew ci jataay bi nag ngir gunge ñu ci rek ngir man ñoo taaralal jataay bi man ñoo wettali ci jataay bi imaam Serigne Abdul Xaadir Mbakke moom Serigne Mahmoudan moom teewal fi imaam yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi yëpp ndax itam ku tudd sëy ci diine da nga tudd imaam wala kilifa gi nga xamante ni mooy daganal diggante boobu kon ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi ñu fas yéene séq ak ñoom waxtaan euh, dinañ buñ la gannaaw buñ leen joxee ñu nuyoo ba noppi ci la ñuy doog nag tab bi ci jotaay bi kon damay jëkk a jox rek euh, imaam imam Serigne Mbacke Abdourahman mu nuyoo ñu doog a ci jotaay bi imaam ñu ngi lay nuyu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ Abdullahi maa ngi lay delloo nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo seq jataay bi yëpp. di nuyu mbokk yi nga xam ne it ñu ngi bàyyi xel ci jataay xam-xam bi noonu nga ko waxee muy jotaay boo xam ne am na yaakaar ci ne danañu amal njëriñ ñun ñëpp ñaan yàlla dafa ci tawfiq daf ci taysiir ba liñ ci yéene ñu am ko ci jërëjëf. jërëjëf imaam ci kàddu yu am solo yi nga xamante ni moom la nuyoo jërëjëf ñu jox euh, Serigne Cheikh ñaan président Serigne Cheikh ñaan moom itam ñi ngi lay dalal jàmm fii ci Jumaay Touba di la nuyu di la jox kàddu gi nga nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. Euh, ñu ngi sant yàlla di sant Serigne bu baax ci teewaay gi ñu teew fii. Euh, di leen delloo am nuyoo. gën gaa rafet di sant yit ci invitation bi ngeen ñu invité di ñaan yàlla yit li ngeen di xaar ci ñun ci wàllu leeral ci wàllu li ngeen ñu bëgg a laaj yàlla kàttanul bañ man man cee leeral li ngeen li ngeen soxla yëpp di kontaan bu baax bokk ak jataay bi kilifa yu tedd yi ngeen tudd buñ ci tuddee sëñ Mbàkke Abdourahmane day daal di doy sëkk donc ñoo ngi leen dellowaat euh, antenne bi ak micro bi Euh, di xaar laaj yi jërëjëf. ok jërëjëf président ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax macha allah waaye itam di jox kàddu gi sëriñ Abdou bu Bousso Thierno mu nuyoo moom mi nga xamante ni moom moo fi teew président commission culturelle bu daayira Muxaddamatul Xidma mu teewal fi daayira Muxaddamatul Xidma sëriñ Abdou Lahad asalaamaaleykum. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu seqal jataay bi ñu ngi leen di nuyu bu baax. te di leen siyaara te di leen ndokkeel di am mbégte bu baax a baax ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne war nañ koo def di nuyu al imam sa sëriñ Mbacke Abdourahman di nuyu euh, sëriñ Abdul Xaadir Mbacke mu sëriñ Mahmoudan di imam moom it teewal fi imam yi dëkk bi yëpp mën nañ ko wax di nuyu président sëriñ Cheikh Ñaan mi nga xam ne tamit euh, liggéey bu am solo bii nga xam ne moom la daayira Muqaddimatul Xidma di taxawee moo ñu ciy gunge moo ko jëmmal Euh, ci ci taxawaay bu am am solo kon sëñ Ablaye ñu ngi lay delloo kàddu gi jërëjëf sëñ Abdou Lahad ci nuyoo bu am solo boobu nga jox mbokki téléspectateurs yi waaye mu dab suñu ci jataay bi nag sëriñ Abdou Lahad Bousso maam Asta mi nga xam ne moo jiite commission sociale ak relation extérieure bu daayira Muxaddamatul Xidma comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi imaam Serigne Mbacke ci yow laay doore ku ne ab sëy ci lislaam ku ne ab sëy da tudd charia bu dee ay julit lañ danañu interpeller charia mm-hmm. lan la charia wax ci sëy ndax suñu borom subhaanahu wa taala kat moo wax ci alquranul karim ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma kon dafa mel ne suñu borom moo daganal ab sëy ci diggante góor ak jigéen mm-hmm. waaye nag bi lim koy daganal yépp nag am am na solo su am waaye nag am na ay cëslaay yoo xamante ni ci la sëy bi war a tegu kon suñu laaj bu njëkk mooy ban importance la sëy am ci chariatul islaam yi euh, jërëjëf sëriñ Abdoulahi ñu ngi leen nuyu di nuyu kilifa yi ñu seqal jotaay bi yëpp laaj bu am solo la sëy ndigalu yàlla la loolu rek doy na ci am solo suñu boom lépp lu mu santaane sant ko jaam ñi lu am njëriñ la ci ñoom buñ ko xamee ak buñ ko umpalee moo santaane ñuy dencante mhm. am na ñett njariñ yu fees yuñ ci mën a bàyyi xel bu njëkk bi mooy dafa santaane dencante ngir fegu mhm. ndax jaam bi am na yëg-yëg bu muy am boo xam ne mhm. dana ko bëgg a faj sunu borom ubbil ko bunt boo xam ne mën na ko caa faj te du tooñ kenn du ci jële lor muy buntub sëy ñaareel ba sunu borom bëgg xeet wi di yokk ci bunt bi mu ko wutal fenn benn bunt la muy bunt bu sëy kenn nit la bindoon mooy aadama bind ci moom xawaa sant leen ñu ànd ñiñ jur mu sant leen ñu jaxasoo ay njaboot di ci soxi ko bu kere yàlla bu neexoon yàlla kenn ku ne bindal la boppam ni mu def malaaka waaye ci aadama yi moom daa bëgg ñu ñenn ñi di jóge ci ñenn ñi yoon nag la ci ubbi bu yoonu sëy weneen wu dul sëy rek daganul kon am na solo ndax mooy wenn yoon wi mën a jaar ngir xeet di yokku ba kero muy soob yàlla am na njariñ lool ndax bunt boobu moo des ci bunt yi bu njëkkoon dañ laa wax ay moomeel waaye léegi fi ni nii benn ngir nit ñi yokku nit ñi yëg-yëg bi ñuy am ci góor aajowoo gi mu woo jigéen jigéen di aajowoo góor benn yoon lañ am ngir fa faj aajo gu ci anam gu tegu ci yoon muy buntu sëy mm-hmm. yoon wu lu yor rek day daal dugg ci eh, ak jalgate mm-hmm. kon loolu sëriñ Abdoulaye day wane ne mm-hmm. am na solo ndigalul yàlla la te lu yàlla digle lu am njariñ la am na solo ndax moo tax nit ñi man di yokku ndax ci yokku nit ñi ci la fi àdduna yi dese yàllaa fi wàcce nit ñi bëgg ñu dundal suuf si bu fi nit ñi nekkul ci woonuwu fi xal teg ko fi nit doomu aadama it am ay yëg-yëg ni muy xiife di mare noonu la góor di aajowoo jigéen jigéen di ko aajowoo góor ubbi bunt boobu ne yoon wu dagaan la woo xam ne dangeen koy def ba noppi seen aajo faju ci am ci tuyaab wàcc yoon woo nag am bakkaar am na solo sëñ al sëñ bu ñu ko doon tënk ngir ñett yooyu yëpp. Mm-hmm. allah kon jàpp naa ne leer na ñuy déglu xam nañ ne importance bi sëy am mën nañ koo tënk ci ñett yooyu. Mm-hmm. bi ci njëkk ni nga ko waxee ndigalul yàlla la. Mm-hmm. loo xam ne suñu borom moo ko santaane ñu war koo def. beneen bi ci topp mooy mooy tax doomu aadama yi di yokk ci kaw suuf mën koo dundal. beneen bi ci des mooy euh, yëg-yëg bi nga xamante ni mooy yëg-yëgu bànneex ci yoon wu dagan ngir mën koo def moo tax suñu borom rëdd rëdd woowu léegi nag bi mu bi mu amee importance boobu ba suñu borom santaane ko bi mu ko santaane jàpp naa ne wutal na ko ay charte wutal na ko ay arkaan maanaam ay cëslaay cëslaay yooyu yan la waaw bu dee sëy eh, ci mazhab Malik bi ñu nekk nag la ñuy wax ñetti ponk la am yoo xam ne bu benn manqué sëy amut bi ci njëkk mooy sëy day am kilifa jigéen ji tax ñuy wax nag ci lislaam jigéen du maye boppam waaye kilifa koy maye te kilifa dafa am ay charte yu ci nekk bu fekkee ne ab jullit lañuy ñuy takk ki koy maye na doon jullit ne moom na doon mu kàllaf gone du maye ku yaramam naqari du maye na doon mu kàllaf bu mu doon ku nekk armal di aj wala umra xaala boobu ku ci toll dañuy tere ci lislaam ngay fas ab sëy kon kilifa jigéen ju ñu maye ju ne ak num mu mën a toll moo xam mas naa dem kër mës dem kër am nay doom amu doom faw am na kilifa gu koy maye goo xam ne ab julit lay doon góor lay doon te mag lay doon ànd ak sagoom te it bu mu nekk di ko armal di aj mbaa umra loolu jàpp naa ne lu mat a bàyyi xel waaye nag loolu jigéen tax ñuy wax waaye góor moom sartuñ ci moom kilifa mën naa dem ñaanal boppam mën naa yebal ku ko neex jigéen sax mën naa dem nangu ji ñuy may nit soxna mu yebal ab jigéenam jigéen bu dem nangul ko waaye li mënta nekk mooy jigéen di fasal di fas di fasal ab sëy ku jigéen saa bu ñuy fas ab sëy moom ki koy fas ci lislaam dañuy wax ne góor lay doon kon loolu it lu ma taxam la ñu xamee ci ne kon yooyu islaam moo waxoon ni ab sëy du am te wali yu amul euh, wali bi it jullit lay doon bu fekkee ne ki ñi maye julit la bu fekkee nag ki ñi maye du julit ni ki nga xam ne lislaam daganal na nit takk ab juif daganal mu takk ab chrétien waaye ka koy may bu baax na doon ku mbokkal diine ci lislaam it nit ñu bokkut diine ab julit mënta yilif ku mbokkalu diine ci wàllu sëy kon ñooñu ku leen takk it da ngay dem ca seen seeni bokk wala seeni diine ñooñ ñu may la ko suñ la ko may dana baax nag waaye ñoom ñoo ko war a waaye bu dee julit la doonte ay way juróom yéefar lañ julit bee koy may waaye yéefar ci moom kon euh, ponk bi njëkk sëñ Abdoulaye mooy kilifa mooy maye bu dee jigéen la ñu maye hmm. kon bu kenn wax ne jigéen ñi mas naa dem kër wala am nay doom kon léegi kilifa bopp la amul fenn ci àdduna ci lislaam fu jigéen di yilifa boppam ci pour may bokk boppam ki koy maye it dañ cee sart ay sart waliyu dañ ne day nekk xaas di nekk am waliyu xaas mooy na nekk mbokkam bu ñuy toftalee ñi gën a yay ci maye doom la ñuy jiital hmm. nit bu xasee am doom ba doom ji doon mag bu ñuy mayee yaayam doom ji moo gën a yee ci maye mm-hmm. teg ci sët teg ca bàyyi noonu lañ koy toppee ci gën a jege ci mbokk yi ay ba mbokk ay frère ay ay ay baayam yu ndaw bu ñoo ñu jeexee ñu xool bu fekkee ni am na ku ko yoroon maanaam ay waajur nekkuñ fi waaye am na kuñ ko dénkoon ba mu doonee xale ba mu màgg mu yor ko kooku mën na ko maye bu loolu amul nag ñu dem ci yoon kilifteef noonu lay demee mm-hmm. kon faaw ay mbokkam ne fi mm-hmm. wala kuñ ko mës a dénk mu yor ko wala ñu yoon may mhm. loolu mooy li ñuy tuddee xas wilaya nag mooy mu dem ci jàkka ji wala mu dajeeg ay mhm. dëkkandoom gis kenn ne ko mhm. loolu jigéen joo xam ne te amu fi menn mbokk dëkk bi mu nekk it tribunal amu fi fu ñu àtte nekku fi kooku señ naa dem dem ci jàkka ji ne man kat dama bëgg borom kër wax ay mbiram ñu laaj koy bokkam kenn néewu fi amu fi mbokk masala man naa doon tuub nga xam ne moom dong moo tuub ci ay kooku amu fi amu bokk ci dëkk bi yoon wuy maye néewu fi kon bu demee ci jàkk jàkk ji na ko maye loolu la ñuy tuddee wilaaya nga xam ne julit bu mu dajal rek mhm. waaye na fekk nag jullit ba doon góor nekk mu kalaf sart yi ñu waxoon ci wóli yu daje ci moom mhm. su boo mën na ko maye loolu mooy sart bu njëkk sëñ euh, Abdoulaye ci mhm. euh, ci ci ci ci ci ci ponki bi ci des mooy euh, li ñuy tuddee ki ñuy maye ak ki ñuy may may maanaam bu ñuy fas ab say góor ak jigéen la fas mm-hmm. dañ cee sart kenn ki na doon góor mu leer ne góor la mm-hmm. bu wér amul lu mu sikk sàkk kenn ki it na leer na jigéen deesul maye ñaari jigéen deesul maye ñaari góor ci sul deesul maye nguli ngaana goo xam ne xamuñ góor la wala jigéen mm-hmm. waaye saa bu ñu mayee daa wala leer ne kii takk góor la goo xam ne mu xàqaqu zukura am na lu wér ci de góor la jigéen ji ñu maye leer na ne jigéen ñaar ñu ñu la lislaam santaane may beneen pas-pas bu ñu fas bu yooyu du pas-pas ci lislaam kon mënut benn beneen pas-pas euh, foofu dañuy sart ci jigéen jooju ay sart yoo xam ne ngir ñu mën ko mayee ci lislaam mu wér bi ci jiitu bu mu nekk ci bu mu jigéen ju di jib sëy tasagut ko mën a may soxna si jàmbur lañ may buñ ko fasee it fasu hmm. ñu bàyyi xel foofu it ab sëy ci lislaam boroom kër moo koy dindi wala hmm. yoon borom kër mooy fase ndaw si iddawu bay dañuy yàqu wala borom kër fasewut wala ngir ngànt wala lu mën a xew sañ naa dem ci yoon bu yoon gëstoo ba xam ne fase jaadu mu fase ko bu lànkee mu mu forcé ko su boobaa day wéy ñaar ñooñu dong nag ñee mën a fas tas ab say loolu yonent alayhi salaam am na ci jamono yi jamono yonent alayhi salaam koo xam ne am moomeel la ab sangam da ko may soxna mere ko tas soxna sa mu dem jàmbar ki yonent alayhi salaam mu ne ko sëñu ko innama talaaqu liman yaxudu bi saaq ci la waxee wax ju solo jooju ne boroom kër moo saña a fase ak ki ko wuutu te mooy yoon kon loolu moo tax am léeg-léeg mer am naqar de am way jur wala ku mel ne moom daal rek ne maa defoon sëy bi dindi naa ko wolof day wax lu ko takk tasuk wax ci lislaam sëy li takk tasuk ndax euh, wëlu yoo koy tas moo koy takk waaye mënu ko tas kon loolu na bàyyi xel kon jigéen di Euh, bu mu doon jigéen joo xam ne daana bu mu doon jigéen joo xam ne it dafa feebar ku feebar kenn du lu may feebar boo xam ne amuñ yaakaar ci ne dana wér bu mu doon jigéen joo xam daane ci idda borom këram da ko wàccoon mu iddaw idda ji jeexagul moo xam borom këram faatu wala ñu fase ko bu mu doon sax koo xam ne dañ koo siifoon ñu da ko laablu seetagul yooyu yëpp kenn du ci may kon jigéen suñ ko may day fekk ñu mu set wicc maanaam lenn luy nuru gàllankoor daal lu charia tere nekku ci moom bum doon ko armal di aj umra ñooñu kenn du leen maye ci lislaam euh, yooyu it jàpp naa ne lu lu mat di suuraale ndax léegi-léegi it euh, ñiy fas di laaj yu mel noonu baax na ci bu mu doon jigéen joo xam ne it waa ji dafa mas dafa moom li ñuy wax liaan masal ñu waatoo mu tuumaal ko njaaloo ñu dem waat rëbbonte ñooñu seen diggante day aram bu faw bu doon koo xam ne it borom këram da koo fase ñett yoon dootu ko mën a tëkkaat lii fii ak li ñuy wax ban de sëy amul maanaam mm. ndaw si sëyi feneen mm. ba tasaat iddaam jeex mu door ko mën a tëkkaat waaye lu ñu mën a wax ñetteelu fas xase tab bi moom bu ko fasaatee it fa suuf looy bàyyi xel léeg-léeg ñu fase fase ñetteel la yu ne lañ lay laal naan idda ji yeexagut see rek nañ xam ne sëy yooyu ci sart eh, fase yooyu du ci mm. yow ak sa borom boo waxee ne fase ko rek lislaam dañu jàpp ne tas eh, loolu lenn la ci sart yooyu mat a bàyyi xel foofu bu dee góor gi it sart nañ ci góor gi sart nañ ci na doon góor goo xam ne moom itam feebaru feebar kenn du ko may soxna mm-hmm. armalut di aj wala umra ñooñu kenn du soxna bu mu yor lu ëpp ñeenti soxna ku yor lu ëpp ñeenti soxna boo ko fase it fasu yu mel noonu it yu met war di laaj la jataay yi doon ko xam ne it dañoo aramante ngir mbokk wala dañoo aramante ngiru askan eh, ngir ngir ngir ak goromle wala dañoo araamante ngir nàmpandoo nit dana ko araam bu faw ci yu noonu ngeen bokk masalan tey nit képp koo xam ne euh, daa soqi koo ci yow araam na la bu faw koo xam ne euh, sa rakk la mhm. wala sa mag képp ku soqi koo ci moom araam na la wala sa baay wala sa yaay képp ku soqi koo ci moom kon nit ab jarbaatam ay sëtam yëpp day araam yooyu nag dañ ciy xaajale wolof yi dana léegi mu ne diw sama jarbaat fekk daa bokk ak seeni ndaye bokk uh-huh. waxuñ loolu li ñuy wax direct la ñuy wax jigéen di xam ne da ngaan maam moom daal ñoo bokk ne wala ñoo bokk bàyyi wala ñoo bokk ñaari yëpp lépp lu soxi ko ci moom aram na ba faw yooyu it jar nañ bàyyi ko xel di ko laaj kon yooyu mel na ne mooy sart yi sart ci góor gi ñu may it nañ gëstu yooyu bu mu doon koo xam ne dafa tële tële yor kër yow de daa waxoon ne yéen ndaw ñi ku ci man baa Mm. mooy mën a yor kër na samp mm. ku mënut na bari lu muy woor kon waxuñ koo xam ne du mën a yor kër li yor kër laaj mënu ci dara ba nag muy dugg ci takkum soxna ndax day lore te lislaam day wax ne la darara wala dira mm-hmm. lislaam nangu kenn kenn lorente kon foofu it day mat bàyyi xel baax a baax loolu mooy ñaareelu sart bi kon ñaareelu ponk bi kon mooy e, fi ñuy fas mooy góor ak jigéen ñi ñuy fas ak kilifa ñetteel bi mooy baat yi teg tegtale ne sëy am na kàddu yi lu am solo la ci mm. lu lu mat a bàyyi xel la ab sëy kàddoo koy fas moo koy fecc bàyyi xel loolu saa bu wali yu kilifa jigéen ji ne may naa la soxna góor gi ne nangu naa wala ki ko teewal ne nangul naa ko sëy fasul foofu it dañuy wax ne kaf jamu mm. yooyu kenn du kafe doom ji mun la may naa la ko sëy bu na te sëy bu fasoo li ci doy war mooy bu fasu woon nga nga fecc ko ci saasa it genn wàllu ci war la ndax saa bu mayee nit soxna mu nangu ca saasa jigéen je moom xaaju ceram bu ko fasee ca saasa dana ko jox genn wàllu cen bu ñu wéetee mu door ko fase war ko jox cen gu mag kon yooyu eh, mat mat mat mat lu mat di moytu di ko jéem a kafe ak yu mel noonu eh, sëy kaf jëmu ci mook fase kaf jëmu ci moom jidduhu jidd wa hazluhu jidd loolu la yuntu islam waxoon kafam dëgg la dë euh, dëggam dëgg la kon euh, baat bi tegtale ab sëy mooy may naa la ki koy def mooy kilifa jigéen ñi mbaa ki ko teewal ak nongu naa loolu borom kër bee koy def mbaa ki ko teewal ñaari baat yooyu dañu bëgg ñu sësaloo bu keneen may naa bu noppee rek sant yàlla ji ci yonent bi mu daal di nongu naa say façon mbooleem yi ñu def di ko jiital xutba yaak ñaan yëpp yu baax la nag waaye fii waxaguñ fasal naa la kenn nongu naa say fasoo kon jàng fatiha ñaan alxuraan ci jàng yëpp lu ñuy barkeeloo la ngir sëy barkeel waaye nañ xam ne lii fas ab sëy mooy ijaab ak qabul mhm. fasal naa la mu ne nangu naa moo tax xel foofu it léeg-léeg nit ne fasal jekki-jekki nit ñëw fu ñu ne fasal nañ ko soxna baayam daal ne fasal may naa ko soxna ñu waaje wax ko mu ne man loolu anduma ci sëy fasuwul ndax bu fekkee yéen na ko ci saas daal di nangu ci saasa mu daal di ak teewam fu du ci sart waaye bu ne may nañ ko soxna wu kenn waxu ko ko nañ jàpp ne fas sey amagut ndax sey ñaari pàcc yi la may la ak nongu kon may am na waaye waa ji yëgul bay nongu loolu jar na bàyyi ci bu ñuy fas ay sëy léeg-léeg dana faral di am loolu mooy ñetti ponk yi nga xam ne ëpp sëy mënu ci ñàkk sey bu amul waliyu sëy amut mhm. ñaar ñi ñuy wax muy góor gi jigéen ñi benn sart manqué sey amut ñaari baat yi ñuy wax may naa la nangu naa bu amut sëy amut mu des ñaari sart yoo xam ne moom bu amut sey bi dana wér waaye nag góor gi du sañ a ak soxna si te sart yooyu ñëwuñ benn bi mooy tudd cen xanaa bu ñuy fas mën nañu wax rek ne noonu duñu wax cen waaye nag balañ koo jébbal soxna si danañu wax ne cen gi nangam la du sart nag joxe ko moom waaye nañ ko tudd waaye nañ joxe dale bi ñu ko joxe it nag ndax bor la boo xam ne te bor daa waram tele kon buñ nee dana ko jox canal nangam nañu wax ne kañ bu fekkee dañuy avance ñu joxe liñ avance ñu ne des wi danañ ko joxe balaa nangam loolu dañ ko war a bind mu leer kenn nag ki masab Maali li gën a néew mooy rubon dinaar mooy benn gramme or un virgule six cent vingt cinq gramme ci or or bi ñuy wax nag vingt quatre carats lay doon kon jamono ju ak dëkk bu ne lu mën a jar lool rek mooy li gën a néew ngir fas ab sëy saa bu amee rek sëy baax ca nit ñu bàyyi xel ne du lu ñuy maye kenn suñu ko maye ndax àq yàlla di ci nekk nit ki mën naa maye alalam mën naa maye waaye nag li tudd can gi dëgg-dëgg muy àqalu sadaax mu mëni su ko maye kon faaw góor gi joxe ko wala ñu joxeel ko ko say dóor mën a wér it ñu bàyyi ko xel sart boobu kon bu ñuy fas sëy mën nañ ko bañ tuddaale waaye wéet du am te tudduñ tudduñ can gi ko xasee tudd nag mën naa doon lu mu teewal mën naa doon bor mën naa teewal leen leen li bor waaye nag la ca doon bor nañ wut nañ wax kañ lay doon kañ lañ koy fay beneen charte bi muy ay seere moom it charte la ci sëy bi jokkoo mën a mën nañoo fas ab sëy te kenn du ko fekk waaye bala ñu bala ñoo wéet ñoom ñaar ñi ñiñ mayante nañ wut ay seere yu saxal ne bis sàngam ci heure sàngam may nañ diw diw loolu bu ci amut boobu sëy baaxul seere nag ay nit lañ koy def nii ci jamono yit aw këyit li ñuy tudde certificat de mariage seere la kon buñ bindee certificat bi saxal na diw sangam sangam ñaare sax dañ cey defaale ña ko ña ko seere mhm. loolu luy dëgëral bu jafe-jafe amoon ci sëy ndax takkoon na ko tëkku ko kayit woowu dañ ci lislaam da ciy sukkandiku kon lu am solo la ci wet googu ndax seere lay doon yooyu moom du sart ci fas sëy bi waaye buñ fasee ba noppi nag bala ñoo jox bàyyi leen ñoom ñaar ñuy wéet nañ nañ wuti seer yooyu mhm. kon mën nañoo fas ci saasa wut certificat mariage mën nañoo fas wuti seere ginnaaw ba ñu wuti certificat de mariage sukkandiku ci seere yooyu waxoon waaye moom ab sëy duñu duñu sëy wéet moom te loolu amul waaye nag mën nañ ko fas te du amagul loolu daal ñaari sart la yoo xam ne sartu sixa la ñuy tuddee bu dee ñett yële nag moom ay arkaan lañ mooy sëy du am moom te amul bu ci benn manqué sëy amul loolu daal ci tënk sëy Abdoulaye mën nañ ko wax ci ne waaw allah euh, macha allah exposé bi macha allah suñ euh, imam euh, rafet na ni nga leerale arkaan yi muy ponk yi muy euh, waali wali kilifa gi mënta ñàkk ci sëy bi sëy bi tam sart yiñ sartal ci ku góor gi ak ku jigéen ki itam yooyu itam munu caa munu caa ñàkk waaye itam nangu gi xabul bi may naa la nangu naa lool itam mënta ñàkk mu amaat yeneen sart yi nga yi nga tuddaat léegi muy sart yi tax nag sëy ba mën a wér yee moom sart yi tax ñu mën a fas sëy bi la waaye buñ ko fasee par sart yi tax mu mën a wér muy can cangeeg seede yi loolu itam lu am solo loo xam ne euh, leeral la waaye euh, imaam Serigne Mbacke Abdourahmane ndax question yi kilifa gi nga xamante ni imaam wala kilifa gi nga xamante ni mooy fas sëy bi doonut yoo xam ne jamono bu nekk balaa fasub sëy war naa poser question yooyu. ah kay sëñ Abdoulahi loolu laa jàpp ne sax mooy li war a jiitu. nit lu muy def da ko war a xam. ginnaaw yow dañ laa dañ laa doyloo ba jàpp ne ci lislaam ngay def ku li nga def war na laa leer mooy benn muy ñoo xam ne xam nga leen. xam ne ñii war nañoo mën a ànd nga bool leen ndax li bari ci ñun suñu biir fii niñ jaxasoo uh-huh. léeg bu ñu lee fas loolu fekk na nga xam lépp waaye loo ci xamut war nga ko laaj uh-huh. léeg-léeg nga dégg njuumte am ñu ne diw dafa takk ab sëtam day am koo xam ne moom maaw ñu bokk benn baay ñàkk xam ñu koy fas ndekete waru ñoo ànd nit takk jar baatam ak surtout lu jëm ci wàllu nampandoo nii nga xam ne lu doy war la moom uh-huh. nit saa bu xasee nampal gone yaayama moom ñam jur ñoo yem mm-hmm. yu mel noonu nag imaam jàpp naa ne war na mm-hmm. balaa fa sey bi bu toogee laaj leen cheikh Mouhamadou Fadil moom sey Abdou Khadir hafizahullah mas na cee def këyit bu am solo mm-hmm. nga xam ne yëpp da ko bind ci ay wolof tasaare woon na ko ci barab yu bari nga xam ne eh, dañuy bëgg yow imaam boo boo ko timee dalay dimbale man nga laaj par benn rek bu sart yëpp daje nga laaj ñu tontu la yëpp waaw mën ngaa fas xam ne fasu na waaye boo laajee benn manqué nag daa war taxaw dimbali leen ñoo xam ne lii kat am na léeg-léeg pas-pas boo xam ne da nga koy faste fekk fasuut loolu amul njëriñ mhm. li ngay te saa yu sart yi manqué dañ lay wax ne la pas-pas la boo xam ne lépp ak mooy yàlla lay doon mën a jur yeneen yeneen loo tax jar na di laaj bu baax di gëstu bala ñoo fas say mhm. kon ñu gàtt-gàtt rek benn imam bu ku amut jot war naa wut benn équipe mhm. boo xam ne ñaar ñi bëgg a fasante bu dikkee dañ leen woo waaw yéen ñaar ñii lu ngeen bokk ak ndaw si mas naa sëy waaw kañ la kañ la ko gis ñu la moom de mu tasee léegi xam ne man na fukk fan ak juróom kooku boo ko mayee xam nga ni ci ci idda la nekk te danse bi ci nag nit kuñ mayee ci idda su ko borom kër jaxasoo moom dañ leen di tas te dootuñ sëy ba àdduna tukki loolu moom dafa beneen beneen xotoru la bu ci nekk nga xam ne moom liñ naan mu abadu dañ koy araam la bu faaw te lépp lu koy saw bon na moy moytu te eh, takk ku ne ci idda wala mu ne ci istibra di laablu loolu moo koy waral oto yooyu yëpp jàpp naa ne imaam war naa mën a am jàkka yëpp sax nag am équipe yoo xam ne lu meloon lay lijjanti nga xam ne moom ku dikk rek da nga jaar ci ñoom ñu wër bu ba mu leer na leen ñii kat amuñ benn problème ñi nga xam moom xam nañ leen day gis ko xam ne xam nga ko sëñ Abdou Khadir mu ñëw di fas da nga du du fi indi du fas fii ñoo xam ne ci yoon waaye nag ñëpp yemuñ ñëpp xamuñ kon saa bu la leeree ne ñii ngay bëgg a maye amoo ci lu leer daal yow uh-huh. bala ngaa fas gëstu jàpp naa lu am solo sëñ Abdoulaye macha allah waaye itam euh, am amut barab buñ ko war a fase xëy na jàkka dañoo miin sëy ci jàkka ndax mënees na ko fase feneen fu dul jàkka waaw jàkka sopp nañ ko ndax barke xëy na nag li ma tam moytu mooy waxtaanee moom wari su ko def ci jàkka ji pas-pas bi yàlla ma si ko biir jàkk ndax jàkk dafa barkeel ak it mbooloo mu fay teew di seere di ñaan waaye nag sëy fu lañ ko mën fase ca biir kër gaak ci saal baak fu ne mën nañ fa fas sëy waaye nag dañoo sopp jàkk ndax néegub yàlla ay jaam yàlla fay daje ñu am yaakaar ci ñoom buñ ci ñaane yàlla daf barke waaye waa nag bu dee am ay waxtaan ak ay sànnante kàddu gërëmante yooyu moom mhm. la gën mooy ñu génn jàkk ji moom wala ñuy séddale nga xam ne bu soobee lañ koy war a jox mhm. yooyu mu génn jàkk ji defe ko ci bitti mooy gën mhm. waaye ci seede yooyu tam bëggoon naa ñu taxaw ci tuuti ndax léegi-léegi da ngay dem ci jàkk ñu fay fas ab sëy fekk nga fa doon julli tàkkusaan wala timis ñu daan ne leen dafa am ñu fi maye yow nga nga bokk ci seede yi ñëw toog ba jóg dem te xamoo ñu ñuy maye loolu tam ndax war war a suuta siiwal ñu ñuy maye. waaw jàpp naa ne ñaari yëf war na am mbooloo mi nañ leen xamal ni diw sàngam la mm-hmm. may diw sàngam ñu dégg ko mm-hmm. tànn ci biir nag ñuñ xam mm-hmm. ne leen yéen yéenay seere seere yi seere yi farata yi nga xam ne bu problème amoon dañu leen di woo surtout bu fekkee dañ koy bind ci kayit moom ñu bind ci seen i tur seen numéro d'identité nekk ci ñu xam ne ñii moom ñooy seere yi yu cosaan yi teewul nag mbooloo ma fa teew ñëpp ku ca xam boo ëllëgee boo nee man kat bi sangam teew naa ci jumaa ji ñu doon may diw diw fala mu fekk mm-hmm. fas nañ ko mm-hmm. lool sariya da ciy sukkandiku waaye nag xëy na comme ni mbooloo yi dajee fii doo xam ñëpp man naam ñun la diw sàngam la ñu maye te tur rek nga xam kooku boo ëllëgee mën ngeen dajee sax doo xam ne kii kii nga seere waaye nag na am ci mbooloo ma ñoo xam leen nongul ne ñii ñoom ñooy seere yi loolu bu fekkee dañuy bind aw dana ci leer faaw ñu tànn ñaar wala ñett wala ñeenti nit bind seeni tur jël seeni seeni numéro ñu xam ne ñoom ñii ñoo seere sëy bi boo liggéey luñ ci lijjanti dañ leen di woo ñu mën ko lijjanti loolu jàpp naa lu ci am solo la waaye nag nañuy wax ci kaw li doy waar nañu wax ca kaw diw sàngam lañ may diw yéen ñi fi nekk seere leen ko te ñaan yàlla def ci barke lu ci am solo la macha allah macha allah jërëjëf imam yaakaar naa ñiy seetaan tey jariñu nañ bu baax a baax ci wàllu sëy ni ko chariatul islamiya rëdde rawatina ci mazhab Malik biñ nekk mbooleem ni nga xam ne noonu la ko rëdde sëriñ bi leeral nañu ko ak yi ci aju yépp kon xam naa damay jàll rek ci président Serigne Cheikh ñaan ci moom laa jëm si Serigne Mbacke tudd na fi aw kayit léegi mbirum kayit ku ko tudd nag da nga tudd état civil te danga nga tudd itam wàllu yoon yow yaa fi teewal euh, euh, wàllu yoon mooy président tribunal départemental bu Mbacké Serigne Cheikh euh, gannaaw bi ñu la joxee kàddu gi euh, laaj bi ñu lay njëkk a laaj mooy sëy dafa am nu ko euh, yoonu Sénégal tërale ci lu ñuy wax code de la famille am lu ñuy wax mariage civil Serigne Mbacké leer na ni ko charia tërale waaye yow nag ni ko yoonu Sénégal tërale ndax ñu bëgg koo méngale ak charia tey suñ ko doon soo ñu ko doon leeral loo looñ ci mën a leeral muy mariage civil waaw jërëjëf euh, laaj bu am solo la euh, li may njëkk a wax rek mooy bi sëriñ Mbacke Abdourahmane di addu mhm. ci kàddoom njëkk dama ko déglu attentivement mhm. dama ko teewlu bu baax mhm. te li ma ci jële rek mooy euh, mën naa ne daanaka à cent pour cent mm. dafa dëppoo ak code de la famille mm. ndax bari waa na léegi-léegi nit ñi di ci wax euh, jàpp ne wuute da cee am mm. waaye tey bi ma ko déggee mu wax dafa mel ni code bi laa tiim mm-hmm. donc loolu laa bëgg a leeral mm-hmm. mooy sa laaj bi mm-hmm. euh, xam nga réew mi ni mu tëddee am na lu ñuy wax constitution mooy sartu ndaw nda ndayu ndayu ndayu sart yi constitution bi maanaam mooy charte bu mag bi loi bu mag bi nga xam ne nii bépp loi buñ jukkiwaat ginnaaw bi wërta waroog moom daf ko war dafa war a dëppoog moom constitution boo boo ca demee également indi na fa famille ndax sa laaj bu njëkk ci moom mooy euh, solos euh, mariage tontu na ko euh, foofu famille constitution daf ko jox ay àq ak daraja ak doole te famille mënoo ko wax te waxoo sëy kon solos mariage déjà constitution bi euh, prévoir na ko aar na ko sàmm na ko ndax mi ko dugal ci biir famille te famille bu ñu ko waxee rek sëy moo fay am ak njaboot kon euh, mariage amaan na solo foofu ndax constitution gëdd bu mu ko jox waaye bu dee loi spéciale bi nga xam ne nii moom moo tënk wàllu sëy tudd nga ko léegi mooy code de la famille bi mm-hmm. loi boobu 1972 la donc ci lañ ko voté adopté ko mu yor wàllu sëy ak daanaka famille njaboot de façon large li ñu li ñu ñor tey nag muy mariage te code de la famille boobu prévoir ko ni nga ko waxee léegi ma junj ko ci dëppoo gi mu dëppoo ak damay tàmbalee fii sëñ Mbàkke tàmbalee mooy wàllu sexe bi. Euh, code de la famille dafa wax ni mariage mënuñ ko concevoir maanaam mënuñ ko def ci lu dul diggante góor ak jigéen. foog mu leer mm-hmm. le mariage ne peut pas se concevoir qu'entre un homme et une femme mm-hmm. fii ñu waxee tey li ñuy wax droit positif maanaam loi yi ñuy àttewoo ci réew mi mu nekk en vigueur te kenn soppeeku ko mm-hmm. muy code de la famille bi ñuy wax bu 1972 kenn du ci gis góor ak góor gu ñuy maye wala jigéen ak jigéen ju ñuy maye loolu dama ci insister donc li mu wax dafa leer ab sëy daal mënta am ci lu dul diggante góor ak jigéen loolu foog mu leer bi ci toppaat yi indi na ci wàllu âge loolu xëy na sëñ Mbàkke mën naa am dina ci am leeral waaye code de la moom indi na ci âge bi maanaam wàllu at yi nee na bu dee góor gi dafa war a am fukki at ak juróom-ñett ndax suñu majorité maanaam li ñax wax majeur maanaam euh, ci wolof mooy ku majeur mooy mat mhm. mu kàllaf mooy mu kàllaf donc 18 ans lañ ko fixé. Mhm. léegi góor gi loolu war am. Mhm. jigéen gi nag ñu ne 16 la am la war a am fukki at ak juróom-benn waaye foofu am na exception. Mhm. nee nañ mën na koo yées maanaam mën naa nekk mineur. kon tënkuwuñ góor gi jigéen ji rek ci 16 yi. ay principe yu ñu dégagé góor gi moom mooy am 18 jigéen ji am 16 ans waaye mën na koo yées nag. bu ko yéesee nag faw kooku ay kilifaam taxaw ci ndax mineur la. ba ci wàllu loi mineur moom mënul taxaw ci tribunal mënul jëflante mënul jënd mënul jaay faw ki ko yilif di ko defal di ko waxal hmm. buñ jógee ci wàllu âge bi euh, sëñ du Mbacke tuddoon na ko léegi euh, jigéen joo xam dafa dafa jógee ci ab ab sëy tas kooku également trois cent jours maanaam ñetti weer faag mu jàpp ñetti weer yi ba mu leer ba jeex mu door a wax waxu sëy ndax dañuy bañ li ñëpp xam doom am ci diggante bi duñ xam ku njëkk ke la wala ku mujj ki la foofu également it yaakaar naa dañ ci dëppoo diine am na lu ñuy wax consentement maanaam ñaar ñi ñuy ñi ñuy maye dañuy dañuy bëgg duñ leen forcer maanaam ñu joxe seen consentement seen accord même bu dee mineur manees na ko laaj wala ay kilifaam joxe ko mmh. waaye daal lu lu ci mën a am moo xam ñoom ñaar ñi maye joxe wala seeni i kilifa joxe seen consentement maanaam d'accord nañ ni bëggante nañ dañoo bëgg a sëy loolu également euh, yoon dafay bañ ko force nit ki ndax conséquence yi muy jur après moo tax euh, loolu kon buñ ko buñ buñ ko tënkee mooy li ma wax léegi góor ak jigéen la loi nangu ñu sëy loi nanguwul ñaari góor takkante wala ñaari jigéen takkante góor ak jigéen ñoo mën a sëy ci réew mi ci loi yi fi mu toll tembe ba ca topp it ci wàllu âge bi wax naa ko 18 ans pour góor jigéen 16 ans waaye mën na koo yées ci ndigali kilifaam nañu d'accord ñoom ñaar sëy muy consentement seeni kilifa it mën nañoo mën nañoo joxe consentement am na lu ñuy wax prohibition maanaam lu ñu lu ñu tere sëñ bi wax na ko léegi mooy yenn jege jegeerante ak mbokk mm-hmm. lim na ko duma ci dellusiwaat dañ koy aaye mm-hmm. loolu it code de la famille da ko prévoir bu ñu ñëwee ci sëy bi en tant que tel wax naa ko léegi kon d'accord gi moom mënu cee ñàkk can gi condition de validité la maanaam lu mënta ñàkk ci sëy bi la bu ci amut du jàkk bu baax ba ca topp également seede yi mu wax léegi foofu également it daf ci mënta ñàkk bu amut du baax am na lu ñuy wax publicité wax na ko léegi mooy mhm. siiwal gi mhm. loolu it ñun dañ ko loi daf ko daf ko jox doole faw ñu ñu siiwal que ni diw ak diw borom kër lañ ak soxna ngir keneen ku mën a waroon a bëggoon bëgg wala bëgg a def leneen bu dee kuju wa mu mu dem toog te wuti leneen loolu it ci condition yi la bokk euh, bu dee nag euh, forma yi ñuy wax forme maanaam ci wàllu këyit wi su amee sëñ bi wax na ko léegi mën naa amee ci kër mhm. mën naa amee ci jàkka mën naa ame ci barab bu nekk léegi nag su xasee am ah nit ki mën na ne aw këyit laa bëgg mhm. léegi këyit woowu nag yoon dafa wax ni buñ takkee sëy bi may nañ nit ki juróom benn weer maanaam bis biñ ko takkee am na juróom benn weer pour dem ca état civil ba maanaam euh, ca commune ba commune boo gis wala mairie boo gis am na service état civil mhm. état civil pour tënk ko rapidement rek mooy lépp loo xamante ne nii euh, dana tax ñu mën a ràññale doomu aadama bi ci biir askan yu mbokk tur sant turu ndey turu baay sëy bi mu takkante ak bu faatoo lépp daal information boo xam ne nii dana tax bu ñu ne diw rek ñu xam ne duñ ko jaawale diw léegi nag ci biir état boobu nag dafa am ñetti pàcc ndax doomu aadama bu amee li ko gënal gannaaw bu yàlla dogalee mu juddu li ñuy wax naissance bu ko dara jotul te yàlla tudd ko te man ko dana takk jabar muy mariage ah li moom ñëpp xam nañ suñu borom bind na ko te du du deñ mukk faatu muy décès kon ñetti pàcc yooyu ñoo yor état civil naissance mariage décès tey nag mariage bi la ñuy waxtaane kon léegi ci biir juróom benn weer yooyu ñu takk sëy bi mën naa dem ci maire yi bi mu bokk bu demee ci maire bi mu bokk nag moom ku góor ki day dem yóbbaale carte d'identité am wala pièce boo xam danañ ko mën a identifier moo xam passeport la waaye carte d'identité daal lañ gën a taamu waaye passeport nag am na information yi am ci carte d'identité lépp lu koy mën a identifier daal na ko yóbbu rawatina carte d'identité nationale bi soxna si également ànd ak moom yor pièce am carte moom it wax nañ ko léegi témoins yi ñu tuddoon ci jàkka ji wala ci jumaa ji wala ci kër ga bu dee ci wàllu loi góor gi day indi ñaari seede jigéen ji indi ñaari seede donc foofu moom lim nañ seede yi ni ñu toll xaw ma ci wàllu diine waaye bu dee ci wàllu loi bi code de la famille góor gi dina ànd ak ñaari témoin jigéen ñi ànd ak ñaari témoin ku ci nekk it yor sa quarante bu ñëwee imaam wax na ko léegi ni nga xam ne nii ni la ilimaan bi war a gëstoo ki nekk ci état civil buy officier bi moom it yor may na ko mu poser ay question laaj seede yi ndax ñoo ko fekke woon fan lañ ko takki nu mu demee ndax nit ki booy bind dara wala nga di ko def war na la leer kon enquête boobu imam bi di def it officier état civil bi war na ko def ndax bu xasee takk sëy bi wala bu tax bu xasee dëggal sëy ba ñu takkoon ca jàkka ja ngir def ko ci këyit wala wala bañ def ci kër ga ngir def ko ci këyit moom mooy signé mooy def cachet ëllëg kon lu ci am bu dee ab fóola woon wala dara moom la ñuy njëkk woo ne ko yokkat yaa defoon sa tempo fii yaa defoon li yaa defoon lii yaa signé woon mm-hmm. kon loolu également bokk na ci loolu léegi nag bu juróom benn weer yi weesoo nit ki maanaam xëy na am xat wala jafe-jafe jamono wala gàllankoor ba juróom benn weer yi weesu kooku dama koy dama ciy profité waxaale ko ci émission bi benn officier état civil benn nag amatul compétence amatul maqaama ñu ñëw directement rek mu defal leen ko ndax délai déclaration normale bi dafa weesu juróom benn weer lañ may nit ki bu takkee ab sëy ci jàkk wala ci këram ci biir juróom benn weer yi mu waaxu dem ca mairie bi wutu ci kayit bu rombee juróom benn weer yi officier bi sëñ bi wax na ko léegi nit ki mën na bañ a xam bu ñëwee ci yow na la dama bëggoon kat nga bind nga nga bind ko ci këyit damay déclarer sama sëy nga ne ko demal ci président tribunal bi bu boobaa jugement la mën a doon maanaam léegi officier bi du ko mën a jël directement day dañuy ñëw tribunal bu ñëwee tribunal def fa demande attekat bi ci boppam président tribunal wala juge bi nga xam ne nii moo fa nekk topp ci moom comme ci mën a doon rek muy magistrat ba fay ate moom mooy dem audience atte ne sëy boobu nga xam ne nii waroon nañ ko déclarer ci këyit ci juróom benn weer yi te weesu na tey joxe naa ndigal moom jugement bi muy def ndigal lay doon jugement d'autorisation d'inscription la maanaam juge bi lay daan jox naa ndigal officier sangam mu mu am léegi darajay bind wala mu déclarer ci këyit sëy bi ñu fàtte woon def ci juróom benn weer yi mm-hmm. kon àttekat bi euh, mën nañ ne takkul sëy mën nañ ko waxee noonu parce que day joxe ndigal dana def lu ñuy wax mariage bi ci këyit waaye mm-hmm. ndigal la mm-hmm. léegi nag jëkkër ji wala jabar ji ñoom ñaar ku ci nekk yoon may na la nga ñëw jël si këyit wa ci àttekat bi dem ca mairie ba ne ko léegi nag jot nga ndigal léegi nag sañ nga maa defal attestation bi wala certificat de mariage bi ndigal laa ngi nii. Mhm. léegi nag officier bi jugement boobu nga xam ne nii moom la président tribunal wala juge bi joxe information bi da cay am ndax borom jëkkër ji ak jabar ji bu ñuy déposé seen demande bi dañuy indaale seen carte d'identité yi ak seede yi ñu fekke woon ñu xam kañ lañ ko takkoon ban jàkka woon can li nu mu tolloon ñoom nuñ tudd nuñ sant seen date naissance lépp da cay am. Mhm. kon këyitu àttekat bi buy ñëw ci mairie bi ci officier bi lépp da ciy nekk. officier d'état civil ko la may def mooy day jël jugement président bi rek wala juge ba daal di jël registre am daal di recopier amul lum ci yokk amul lum ci wàññi ndax lépp nekk na ca kon loolu laa doon xaw a e, yokkaat ci bu ñu jugee ci e, mariage bi léegi nag be ma njëkk a wax nii mooy li ñuy wax mariage constaté hmm. maanaam loo xam dañ ko takk ba noppi ci jàkka wala ci kër imaam def ko ñu indi ko ci maire yi wala tribunal pour am kayit bi léegi nag suñu luwaay réew maye na lu ñuy wax célébration de mariage may na officier état civil ci boppam moom takk sëy officier état civil yoon may na ko mu célébrer maanaam mu takk sëy comme ni ko imaam di takke ndax sëñ Mbàkke wax na ko léegi xëy na aay yi ñuy jàng yooyu yëpp barkeeloo ko ngir barke la waaye li nga xam ne mooy takkub sëy maanaam koo xam ne nii eh, am nga xam-xam bi am lañ ca laaj lépp mën na ko def bu amee condition ya mooy can gi seede yi ñaar ñi war a def consentement wala seeni kilifa joxante ko ñi ko war a seede seede ko moo tax loi bi également eh, jox a officier état civil mu takk sëy bu fekkee nit ñi bëgg nañ ko waaye bu ñu seetloo suñu réew nag li ci ëpp moom da ngay takk ci jàkka ba noppi yóbbu ca mairie ba ñu defal la waaye comme neex mën nga directement ci mairie ànd ak ñi nga war a àndal fekk fa officier bi mu takkal la sëy comme ni koy niñ ko mën a defee ci kër wala ci beneen barab euh, kon daal ci ci ci gàttal pour l'instant loolu laa amoon ci lu may leeral di xaar xaar yeneen euh, question ak yeneen ok macha allah macha allah président exposé bi am na solo waaye seetlu bi ci ñëpp seetlu rek hmm. mooy ni nga ko waxee mooy dafa mel ne euh, soreewul soreewul lool ak bi sëriñ Mbacke Abdourahmane def ci wàllu sharia yu ci baree bari dañoo dañ cee dëppoo euh, xam naa euh, nga joxal ma sëñ Mbacke rek ndax am na loo junju ci biir ma bëgg moom itam mu àddu ci muy ci wàllu aas bi muy wàllu at yi ci chariatul islamiya imam sëñ Mbacke yan at la góor ki war a am ñu doog koo mën a takkal soxna fasal ko sëy waaye ku jigéen kat yan at ci lañ ko war a mën a dugal ci néegub sëy waaw xam nga bu dee ci lislaam moom tënkut ab sëy ci at hmm. ci man-man la koy tënk ak ñàkk loru koo xam daal buñ ko mayee fi ni nii mu loru hmm. wari su ko mayee loolu nag xëy na mën naa mooy cëslaay ñu ñu wut hmm. bu dee ci lislaam moom waxut ne wala ñoo may ni ki na àgg ci âge bu dee góor wala jigéen mhm. waaye daal na doon koo xam ne mhm. bu dee li mu waxoon ci ne ku ci man ba mhm. mooy kon ki nga xam ne nii jekk na ngir yor soxna euh, ak jigéen ji nga xam ne jekk na ngir sëy ñooñu lislaam du leen tënk ci at xëy na tënk gi nag léeg-léeg du wàññi dara it nag ndax boo ko seetloo maslaha la ndax ñun ñëpp dañuy xam ne léeg-léeg euh, gis koo xam ne boo ko mayee yenn may teel yi hmm. la taxoon ñu di ko maye du ko mën hmm. gis góor goo xam ne bu teela takk soxna it mu tëgul boroom kër hmm. foofu nag xëy na li ñu wute mooy ne bu dee ci sare moom duñu wax ne daf ko araam na yoon nag sañ na ko tere ngir maslaha yu mel noonu léegi yoon sañ naa tere ni di ku àggul sàngam mu takk soxna ngir maslaha boobaa dañeen ci war a topp ndax gis nañ ne jublu wut a xatal jublu ñu lor nit ñi waaye dañuy bëgg ki denc àgg ci âge boo xam ne xëy na dana mën a téye si yor ko dem koor yori jigéen jiit ko dee bu diggee ko waaye bu bu bu ci lislaam nag buñ maye woon ñoo xam ne agguñ aso it lislaam jàpp ne sëy bu xëy na foofu mën naa wuute ci am waaye day jàpp ne bu normal la moom kon loolu leer na euh, président euh, ma dellu siwaat ci yow tudd nga léegi bi nga exposé ba pare ci wàllu état civil maanaam officier d' état civil fi kàttanam yam ci wàllu mariage mooy sañ naa célébrer mariage sañ naa itam ñaar takkante ba noppi ci jàkka wala wala walla ci kër àndandoo ñëw ngir bëgg këyit wuy firndeel ne diw mii ak diw ay way dencante lañ waaye nag dafa am délai bu ñuy wax six mois juróom benn weer bu ko xasee weesu jugement lay dem jugement lay dem euh, jugement boobu nag ci lañ bëgg a waxtaan ndax dafa mel ne Euh, am na ay jéego yuñ doxoon diggante daaw jéeg baren ci wàllu yombal loolu ngir ñu bañ a àgg ci jugement bi ndax loolu tam nag bari na ay jafe-jafe yu mu indi ci ci ci ci dëkk bi xam naa di nga ci ñëw ba tax ñu doxoon ànd ko ak yow ci wut li ñuy wax attestation de mariage muy këyit woo xam ne léegi dañuy bëgg jàkka ji muy jumaay Tuuba sëy yiñ fi fase mu am kayit wu koy firndeel woo xam ne information yi nga laaj yépp dana ca nekk imaam bi takk sëy bi dana ca ne dana ko signe dana wax turam ki ñu may soxna dana ca nekk ak ay ay ay ay filiation soxna si ñuy may itam dana ca nekk ak filiation waaye seede yi itam danañ ca nekk ci biir kayit woowu nga xam ne kayit woowu dana mën a wuutu lu bari loo xam ne mënoon naa am ginnaaw bu ñu bu ñu fasee sëy bi kon loolu ci lañ bëgg ñëw leeral ko leeral leeral leeral attestation de mariage boobu jéego yi nga xam ne moom lañ ci dox ak gan yombal nga bëgg seetlu jafe-jafe yoo seetlu ba tax nga bëgg yombal attestation bi ngir nit ñi mën cee joti waaw jërëjëf euh, comme ni nga ko waxee rek euh, liggéey boobu daanaka at ñaari at yi yëpp euh, daan nañ ko def ak daayira Muxaddamatul Xidma ak imam yi ci nekk yëpp muy liggéey bo rafet ndax boo xoolee réew mi daanaka léegi région yëpp wala département yëpp lu ci ëpp dem nañ ba léegi jàkka joo dugg wala jumaa joo dugg rek buñ fa takkee sëy imam ba fa nekk def fa benn attestation de mariage religieux maanaam boo xam ne ni ci shariha tënku te comme niñ ko waxee léegi daanaka wuute bi néew na wala wala bëriwut mmh. euh, léegi nag euh, li nga xam ne ni danaa ko ci leeral tey ndax dañ ma ci interpeller lu mm. baree baree bari dafa am ñu ne léeg-léeg ñu dem maire yóbbu kayit wi ñu laaj leen seede yi pour ñu ñëwaat ak euh, borom kër bi ak soxna si mm. loolu nag biñ ma ko waxee euh, tey occasion occasion également ma ma leeral ko mm. euh, réew mi dafa tënku ci loi wax naa ko léegi loi 1972 la ci biir loi boobu nag ba tey amagul benn pàcc bu ñu jagleel imam bi maanaam kayitu imam uh-huh. kayitu moski uh-huh. loolu foog ma leeral ko mu leer uh-huh. euh, maa ngi fàttaliku war na mat ñaari at ci ginnaaw amoon na benn séminaire boo xam ne ni ministère de la justice mi ngi ko doon def ci gox-goxaan yi man bi nekkoon Kaolack ca la participer am na ñu nekkoon dakaar Saint-Louis Euh, bëggoon a soppi lu toll ci quatre-vingt-six articles daanaka juróom-ñett fukk ak juróom-benn wala lu ko ëpp ci code de bi yooyu coppite nag bokkoon na ci comme réew mi dem na ba jàkka yeeg jumaa yi yëpp presque li ci ëpp dañuy def ay attestation de mosquée ñu bëgg nag xool ban gëdd lañ war a jox attestation bi imam bi def mmh. pour mën ko dugal ci acte juridique yi maanaam këyit yi nga xam ne nii day am yenn daraja yi ak yenn maqaama yi ba boo ko wanee ñu xam ne këyit yi kat daraja jii la am wala maqaam bi la mii la am war nañ koo teg place bi war nañ ko war nañ koo teg place bale loola liggéey la boo xam ne nii ñaari at yi weesu ñu ngi ci nekkoon waaye tënkoo gut kon bu xasee tënku rek loolu dana dem ba leer nga xam ne kenn dootu ci nekk di laam laame bu boobaa danañ xam ndax euh, ba ci lislaam dafa fonk firnde preuve. preuve firnde. loi bi it noonu la mel firnde yi nag bi ci jiitu mooy écrit lu ñu bind lu ñu xaatim léegi nag ci biir xaatim googu comme imaam day bind day xaatim te ñëpp xam nañ position ci société bi ak tolluwaay ak yaakaar gi nit ñu am ci moom ak kóolute gi moo tax nañ ñu dem ba ñu yor wàllu loi commencé xalaat ne faw ñu jox kayitu imaam bi daraja boo xam ne nii danañ xam yan conséquence juridique maanaam ñu ko tegee ci ci ci service wala ci institution wu addina bi wala place fu ñu ko mën a wane rek ñu ñu ne ah gëdd sàngam la am loola nag moo exécute waaye ñu ngi ci liggéey bi kon bu yàlla dogalee liggéey boobu sotti ba ñu yeesalaat code bi ndax code bi 72 la daanaka euh, xaw na fee mag ñu baree bari mmh, mmh, mmh. loolu tey jot na liggéey boobu ñëw ba yeesaat te bu yeesee nag bu boobaa danañ xam valeur juridique bi nga xam na ni mm-hmm. danañ ko jox kayitu imam bi mm-hmm. waaye fii ñuy waxe mm-hmm. fii loi bi toll tey tembe ak waxtu yu ñu toll tembe ci biir code de la famille bi boo ko xoolee euh, attestation de mosquée bi maanaam doo ko ca gis teyit comme gisoo ko ci munoo munoo munoo kon wax ban daraja lañ koy jox léegi nag ñun ci suñu wàllu xam-xamu droit bi nu jàng daraja bi nga xam ne ni tey mhm. buñ ko doon dugal ci mhm. firnde yi maanaam firnde yi nga xam ne ni moom la yoon di di laaj lu mel ni bind écrit seede mhm. témoin classification boobu maanaam ñun dañ koy dañ koy dugal ci li ñuy wax commencement de preuve maanaam ab tàmbali maanaam firnde la waaye foog ñu mottali ko loolu la ñuy woowee commencement de preuve lii kat firnde la waaye danañ ko mottali moo tax kon révision boobu mooy wax ci code de la famille bi am solo ndax suñu demee ba ba ba ba jox ko daraja ak gëdd dootuñu laam-laamee ban façon firnde la mhm. ndax jar na mottali wala jarul mottali léegi nag comme loi bi nag waxagu ci dara te révision boobu egseegul matagut mhm. fii ñu toll tembe kon commencement de preuve lañ ko mën a wax mhm. maanaam firnde boo xam ne nii day laaj mottali moo waral kon ba tey suñu yóbboo attestation de moske yi maire yi officier bi laajaat seede yi foog kon nit ñi comprendre population bi comprendre ne loi bi moom moo imparfait maanaam moo matagut te ñàkk mat googu ñi ngi koy jéem a réviser di ko yeesal bëgg mottali liñ xalaat ne moo ci manqué ndax sëñ bi wax na ko léegi loi boo gis ci société lay àndal ni ñu évoluer nu société bi doxee rek loi bi dana jéem a màgg ba toll ak seen esprit ak seen comportement kon kilifa yi réew mi bi ñu xoolee ne jàkka yi ak ak mosquée yi ñu ngi ñoom ñëpp ñu ngi góor góorlu dem ba xam ne kayitu imaam yi mënatul ñàkk te ñëpp a ngi koy def. Mhm. ñu ne ah kon nag nañu fexe ba yeesal code bi dugal ci kayitu imam yi jox ko gëdd bu ñëpp xam ba fu ñu ko teg ñu xam ban place lañ ko war a jox. loolu nag comme exégul mhm. te li ñu mën a attewoo pour l'instant nii nii tembe mooy li fi nekk. li fi nekk mook mooy bu ñu indee kayitu imaam bi faaw ñu indi ñaari seede yi. léegi nag door a matale mm. donc loolu mooy commencement de preuve mm. mooy firnde goo xam ne ni danay wut lu ko mottali nga xam ne daal ñaari seede yi mënuñoo ñàkk ñëw fi waaw ku yóbbu attestation bi faaw nga yóbbaale ñaari bi fii mm. daal ci droit positif fii fii luwaayu toll mm-hmm. te yeesal bee exegut mm-hmm. faaw ku ci yóbbu attestation de mosquée mm-hmm. ca mairie ba faaw da nga yóbbaale ñaari seede euh, alhamdulilah nag imaam wax na ko léegi xam nga ci biir attestation bi prévoir nañ ci témoins yi xam seen i ñooña kon mhm. danañ yomba identifier yomba àndal ñu dem mhm. léegi nag li ñu war a xëy na euh, soññe rek mhm. mooy révision bi gaaw ñu doxal ko eggale ko ba gëdd bi nga xamante ne nii bëgg nañ ko jox kayitu imaam yi mu egg ba xëy na seede yooyu dootu ci ko jar ndax toutes les information day nekk ci kayit bi wax nañ ko léegi bu dee ñun kayit bi ñu def ci jumaay tubaay ji tey wax dëgg yàlla turu imaam beeg jàkka ji ko def cachet bi témoins yi mhm. même waajur yi nga xam ne ñoo ñoo teewal ñoo ñaan ñoo maye mhm. seede yi can gi lépp da cee nekk mhm. numéro quarante yi lépp nekk ci signature yi nekk ci cachet bi nekk ci kon amatul benn information bu manqué kon kayit woowu war naa mën a wóotu ay seede rawatina seede yi ci boppam ñoom ñu ngi ci biir waaye nag comme li ñu wax rek loi bi ci lañ tënku pour l'instant ab république la mi ngi dox am ay loi loi bi ay nit ñoo ko defoon nit ñooñu ko defoon dem nañ ba xam ne weras ne ko soppi ndax mbirum nit moom day soppe day soppar ñu ko na koy soppi gis nañ it ba léegi imaam yëpp ñu ngi def ay arrestation ah autorité ñi ngi ci xalaat te man li ma wax léegi bokk naa ci séminaire boo xam ne ni ñu ngi ki doon gëstu te it man bu fi jógee dina bind samay kilifa xamal leen nit loolu it ñu ngi koy xaar rawatina Touba ak feneen ak feneen loolu incha allahu rabbi te bu ñu amaatee occasion it amaat ndaje ak ñoom danaa ko gën a yeesal ci ñoom. xamal leen daal Touba moom mi ngi xaar lu mel noonu. ndax depuis lors deux ans jaar na fi ñaari at yoo xam ne ni xëy na Covid bi fi jaaroon moo waroon ndaje yu bari ñu di ko daw. xëy na moo tax lu bari na ralentir. donc loolu laa mënoon wax ci attestation. Ah, euh, imam yi. waaw euh, président euh, laaj bi ma bëgg a dugal foofu. Mm-hmm. mooy léegi xam nañ ne. sëy bi moom mën naa fasu fii ci charia ci jàkka ji mhm. moom ñu ne sëy bi fasu na mhm. waaye nag bu dee ci code de la famille mhm. sëy bi ndax bu amut certificat de mariage mën nañoo jàpp ne ëpp sëy bu fasu la ak ñàkk googu mu koy ñàkk am yan conséquence la mën a jural euh, ki ki nga xam ne mooy moo mooy way ñooy way dañ cente yi waaw loolu loolu it yàgg dañ ko laaj te euh, dañ ci sawar a tontu euh, code de la famille dafa wax ne le mariage ki n'a pas été constaté valable <laughs> loolu ay waxam la mooy même suñ ko deful ci kayit ca civil ba ca ca ba mariage bu fasu la bu valable la loolu mooy principe bi léegi nag état wala loi day bëgg a ñaax nit ki pour muy xaatim wax naa ko léegi l'islam ci boppam dafa bëgg firnde rawatina luñ bind ba ci bor rek l'islam day bëgg ñu bind ko kon bind boobu loi nag ak état day bëgg a day bëgg a euh, soññ nit ñi pour ñu ñu bañ yem ci ay wax dem xaatim ko ngir ëllëg dañ koy soxla moo tax mu teg tekke ni léegi nag soo fekkee yow danga takk sab sëy te amoo ci benn firnde bindoo ko fenn boo amee jafe-jafe wala ñu la wala wala ci institution yi lu mel ni ministère de finances wala ci tribunal wala fu mu mën a doon ku mel ni fonctionnaire tey ji fonctionnaire boo xam ne nii da nga am soxna ah yàlla dogal ñu war la dagg ay impôt léegi yow bu fekkee war war nga ne war wane nga ne damaa am soxna rawatina yi nga yor en charge say njaboot loolu boo ko dugalee certificat de mariage boobu yoon wane ne yow am nga soxna koo xam yaa ko yor dana am lu mu wàññi sa impôt lu mu la pour mu woyof ndax njaboot gi nga yor ndax njaboot dafa diis moo tax nag loi daal ne bu fekkee def nga am sëy boo xam ne nii moo xam ci jàkka wala kër fu mu mën a doon valable na d'accord nañ ko nangu nañ ko waaye nag boo ko bindul ci kayit mënoo koo jooytu mhm. ci kanamu institution yi mhm, mhm. ndax boo ñëwee tey ne di woy sama soxna te amoo kayit duñ la mën a gëm ndax nag administration formalité ci lay dox ci kayit lay dox moo tax nag yoon bëgg a soññ nit ñi bëgg a xiir nit ñi ci ñu koy xaatim ci kayit ngir di ko présenter ndax il faut une preuve matérielle c'est-à-dire foog nga am firnde ju ñuy làmb ndax tey jii ñëpp xam nañ ne fi jamono toll am na ñu ñuy wax ay escroc yoo xam ne ni ay njublankat dañuy xëy ñëw ni ànd ak soxna ni kii kat sama soxna la damaa bëggoon ah ñu jël ko encontre pour sama nangam wàññeeku. Mm-hmm. fekk du soxnaam. Mm-hmm. moo tax état di di soññ ci bind. boo donc pour tënk li nga wax. Mm-hmm. ñaar yooyu lañ ci mën a jàpp. mooy buñ ko deful ci kayit valable na. waaye nag boo soxla ci wàllu état. pour sa mariage jëriñ la fa dara. faaw nga def ko ci kayit ndax état kayit la xam administration kayit la xam. waaw conséquences moom bari ci. Euh, ci ci ci ci lu muy daal ci nit ñi ñoo xamante ni duñ ci am soxla waaye dañ dem ba jamono dab leen ñu war cee am soxla nag bu boobaa nag mu indi jafe-jafe surtout nag ci wàllu miraas yeeg yooyu xam naa dinañ ci dinañ ci dinañ ci dellusiwaat incha allahu taala am am am benn laaj nag bu ma bëggoon laaj nag hmm. mooy maanaam ci bi ñu baree bari ci ñun suñu kii yi suñu xeet yi dañuy ragal ragal li ñuy wax certificat de mariage boo ko tuddee rek ñu ne waaw certificat de mariage loolu wóorut ndax lii nangam nangam léegi nag foofu certificat de mariage ci biir dafa am lu ñuy wax option maanaam li nit ki tànn tànn polygamie mooy damay am ñeenti soxna ni ko charia santaane am koo xam ne day tànn monogamie maanaam day tànn ne man kat benn bii ci laay yam ndax loolu ak certificat de mariage bi ban rapport lañ am. waaw loolu question bu nit ñi di laaj la te comme ni ko waxee jataayu xam-xam la ak leeral tey. kon danañ ci eh, indi ay leeral suñu kem kàttan incha allahu rabbi léegi euh, euh, certificat de mariage boobu option bi ci biir la nekk maanaam ci biir la nekk tey jii booy booy booy booy booy dem di déclarer sa mariage tey jii ñu ñu ñu ñu takk sëy ci jàkka ji wala ci jumaay ji tey nga yor sa kayitu attestation de mosquée bi la imam bi jox ànd ak say seede dem ba egg faw danañ la laaj ndax bu fekkee euh, imaam wax na ko léegi ci Maalik la hmm. kooku yaakaar naa ñeent la hmm. bi ngay def ci jàkka ji kenn tuddul woon dara kenn laajul woon dara hmm. boo ñëwee officier bi dana laaj ne la yow ñaata soxna nga bëgg am na benn réunion bu ñu ma ko laajoon fii ma tontu leen ne leen leeral li nga xam ne nii moom laa jàng te it booy wax di ñu lay wooyee boroom xam-xam te yàlla rek a xam dangay ngay wax it la nga xam ci maanu looy réew mi daal maye na nga jóge ci ñeent di wàññi ba dese benn waaye jóge ci benn benn moom di yéeg looy réew mi mayewu ko loolu foog mu kon koo xamante ne nii euh, signé nga monogamie benn soxna benn ngay benn boobu ngay yor te bis bu fekkee sax tàggoo nga benn boobu it booy takkaat benn nga amaat hmm. maanaam benn benn bi rek ci ngay xës di wéy. maanaam boo xasee def monogamie. Mm-hmm. ma répété ko. Mm-hmm. boo xasee def monogamie. ba signé ko kooku ngay yor comme sëy nag bakkan la suñ mm-hmm. borom moo xam fa muy yem bis boo xamante ni fase am na wala tàggoo am na nga war a amaat soxna li ñuy wax option irrévocable mënatoo ko dindi même boo amaatee soxna benn ngay yemaat bu dee ñaar nga yemoon it man ngaa waa dese benn waaye mënooy jéeg jëm ñett mm. bu dee ñett nga signé woon man mm-hmm. ngaa wàññi ba dese benn mm. mais mënoo yéeg jëm ñeent mm. bu dee ñeent nag moom nga dem man ngaa wàññi mm-hmm. ndax ñeent fa yu yi fi yem léegi nag option yooyu ma wax nag bu mu ci mën a doon benn ñaar ñett ba ñeent ci këyit duñ koy bind moo tudd certificat de mariage kon du ñaari mbir yu waroo mm-hmm. wala yu bokkut option bi bi ngay déclarer mariage bi nga façon ci jàkka ji officier moo lay laaj nag yow comme tak yaa ngi takk soxna tey bis ni ki tey yow ñaata nga war a yor te it sëñ bi wax na ko léegi laaj bu am solo la officier yi war a laaj man naa ñëw ànd ak soxna fekk yor naa benn wala ñaar ci ga man kon déjà mënatuma def monogamie si yor naa kenn wala ñaar kon normalement polygamie laa war a def moo xam nag dama koy def polygamie limitée deux wala moo xam la ma bàyyi ci kër ga wala total kon officier bi it war naa xereñ ba kii ànd ak soxna si ñëw rek ba mu jàpp ne kii rek la ma sa war na koo laaj ndax am na ñoo yor moo ñoo ñoo jot a ñaata lañu su ne am na ko mu bàyyi dolli ci kii moom mënatul mënatul nekk monogamie parce que boo ko defalee suba yàlla tere kooka faatu ah ñu ñëw war ko miraas bu kii indee certificat de mariage am ñu bindoon te monogamie fekk xëy nag ku njëkk moom xamuloon mariage wala mus ko am mus ko toppatoo bu boobaa dañuy jàpp ne kii kenn rek la ma sa am kon officier yi it war nañ góor góorgóorlu comme ni ko imaam yi defee di gëstu di laaj laaj yu yu am solo yu xóot ba xam carrément ku ci nekk euh, ci lan lay xëy ci lan lay gont lu mu bàyyi këram ban situation la am bi muy ñëw fii ci man moo tax loolu également lu lu matalaaj la macha Euh, jërëjëf président dafa mel ne daal tey ab imam président lañ am waaye ab imam bu bu bu bu bu mataki euh, léegi ci wàllu miraas mi nag mhm. yan conséquence la war am ci wàllu miraas mi yooyu itam ci ñàkk certificat de mariage bi ndax am na conséquence ci wàllu miraas waaw waaw loolu moom euh, dama ji sawar tontu ndax talaata bu jot mhm. ci Mbàkke fii mardi mhm. mooy suñu audience état civil loolaal këyitu judd ak nit ki rek dañ koy atte talaata bu jot fii bu dee wàllu succession miraas yi moom àllarba lay doon euh, may nuyu euh, au passage sama xaadi bi sëñ Mourtala Bousso mu ñu koy wax Mourtala Bousso Mauritanie xaadi la fa di ñu jàppale ci liggéey bi di fonctionnaire boo xam état moo ko fa indi ma koy ziar bu baax euh, dama koy wax chaque jour audience bu ñu ñëwee ma ne leen ni ngeen war a déclarer naissance ku juddu noonu nga ngeen war a ñemee déclarer sëy ñemee déclaré faatu. Mhm. ndax ñett ñett yooyu bu ci nekk am nañ njariñ lu mu am. te bala nga koo xam da nga ko soxla. Mhm. Euh, léeg-léeg ma tooñ góor ñi ma ne leen ku nanguwul ñu takkal la say fii ci kayit maanaam boo takkee sëy ba pare nga wuti kayit mhm. boo faatoo it des na ko def sa ginnaaw te doo ci mën dara ndax dañ fi bàyyi ay soxna ñu am ci miraas mi un huitième su mun ah bu boobaa nga bàyyi compte bancaire. xaalis bu bari ci banque bi wala ay kër yoo xam say njaboot dañ koy donn ñu war ko muter ba pare war koo jaay wala war ko dëkkee sax nag mhm. am lu ñu wax sécurité juridique mhm. parce que kër boo ko amee it mhm. war nga am këyit yu leer yu tax ne amaa ko moom ba ëllëg kenn du ko mën a foqati wala ko bëgg a foqati nga dem ci yoon teg sa këyit léegi nag ma ne njaboot googu ngay bàyyi ci seen sa ginnaaw boo fi jógee war nga leen xalaat ndax bu fekkee amoo mariage bi déjà bu ñu ñëwee dem banque ah sunu borom kër faatu na dañu bëggoon jël xaalis bi banque yi moom li ñuy njëkk a laaj mooy jugement d'hérédité oh, demal oh. tribunal mm-hmm. ñu defal la atte boo xam dañ cee xaatim mm-hmm. ki faatu ñaata soxna la bàyyi ak ñaata doom mm-hmm. ba noppi loolu moom suñ ko amut juge bi signé ko xaalis bi fi lay nekk kenn du ko génne te booba banque bi moo ci liggéey di ci jariñu njaboot gi toog léegi nag jugement d'hérédité boobu nag banque di laaj kër gi sax boo ko waree muté ëllëg wala nga bëgg koo jaay ki nga koy jaay ndax boo seetloo ñi fiy jënd kër kër këru dono lu ci ëpp dañ naan la ah nañ dem tribunal nga wuti héritier bi mhm. ndax man nag foog ma xam kan moo may jaay ci yéen mhm, mhm. boobu ëllëgee ma xam ne alali miraas la woon këyit waa ngi nii kii ma ko doon noonu moo ma ko jaay muy ci banque bi muy ci e, muta mutation après décès bi dañuy soxla hérédité bi hérédité boobu nag li tax mariage bi am ci solo veuve yi maanaam soxna yi nga xam ne nii seen borom kër moo faatu ñooñu cër biñ ci war a am faaw ñu jox leen ko lislaam leen ko njëkk a jox léegi nag cër pour ñu jox leen ko wax naa ko léegi administration kayit la xam écrit la xam état kayit la xam tribunal kayit la xam suñu ñëwee ah soxna si kat diw moo ko yoroon mi faatu man awma ci firnde foog ma am kayit wuy leer wuy wane ne diw moo ko yoroon loolu la ñuy wax mariage mm. donc kooku nag soxna soosu li fekk indiwul mariage am man àttekat bi président tribunal wala juge bi sañu ma ko bind ci jugement dérété bi. Mm. ndax su ma ko ci bindee ci sama dossier awma ma ci firnde bu ma waree ne soxna la woon. lu dul ay waxi kese lañ may wax wala ay nit ñoo xam ne nii ah man nañ maa doy man ma mën nañ maa bañ a doy. te nag àttekat bi santuñ ko loolu liñ ko sant mooy sa dossier pièce bu ci war a nekk na ci nekk. ndax li ñuy wax institution yi day continuer nit ki da mën naa affectation wala mu faatu. Mm-hmm. Euh, dossier yooyu des des tribunal ndax coow mën naa am. Mhm. am na lu ñuy wax tierce opposition tey jii man chaque jour ma yor ko mhm. ay nit faatu nit faatu mhm. ay nit ñëw ne diw ak diw ma dem ab diir am ku ñëwaat nit man dañ maa fàtte woon doomam la wala dañ maa fàtte woon soxnaam laa. loolu la ñuy wax tierce opposition. bu boobaa dañ koy laaj moom it bu dee soxna mariage amba ba. wala bu dee doom këyitu juddoom. ñu gis ci bàyyi ji nekk ci ne fàng. donc mhm. kon ci wàllu miraas ni ko laajee léegi mariage bi mënu ci nekk ndax jigéen ji nga xam na ni sariya moo ko njëkk jox akam loi war ko ko jox loi mënu ko ko jox ci wàllu miraas te amul mariage bi mhm. donc loolu muy benn pàcc bu am solo mhm. ci mariage yi donc moo tax ñuy wax nit ñi ne leen saasu su ne nañu dem déclarer wax naa ko waxaat naa ko bari na ñu ko ragal wax nga ko léegi dinaa ci dinaa ci ñëw ndax duñ ko ray ñu bari dañuy bañ a déclarer seen seen mariage ndax dañ naan su ma ko déclaré a ah, soxna si bu bëggee tas daf may yóbbu tribunal loolu mooy wax ji débat de fond bi loolu la sëñ bi wax na ko léegi wax na ko léegi te wax ju am solo la mooy ñaar mooy tas sëy boroom kër bi nga xam ne nii moo takkoon sëy bi maye baatam wala bu fekkee dem nañ ba nga xam ne nii loolu munta nekk bu munta nekk yoon nag mooy tas te nag information laay joxe tey boo xam ne nii foog nit ñi xam ko bari na ñoo xam ne nii dañuy ñëw tribunal ne ah man kat dañ ma fi woo te man sama sëy tribunal takk ko woon. wax naa léegi ne tribunal takkul sëy. dañuy joxe ndigal rek pour officier bi euh, déclarer mariage ba. léegi nag woo nañ ma sama jabar moo ma plainte ne dafa bëgg a tas man nag takk ma fi woon sëy bi kon duma ko fi mayee baat. léeg-léeg nit tontuñu ko. fekk ñun defar nañ mariage parce que am nañ carte d'identité ak lépp léeg mu laaj ma ne ma mariage bi nga defar foo ko teg man sama tontu da ciy gàtt. Mhm. li ma koy laaj ma nit mooy ndax yow kii sa soxna la rek loolu rek laa soxla. Mhm. mu ne ma waaw ma ne ko kon xam nga ne fenu kon li ma xaatim ci kayit bi dëgg la. Mhm. kon nu ma def ba def ko loolu amul njariñ. dëgg gi rek moo amoon njariñ dëggal nga ne soxna la. kon mariage bi baax na. am na ñoo xam également. Euh, dañ koy ragal ci lu mel noonu mooy xam nga calcul. Uh-huh. a ah, kii kan ma yor léeg-léeg ma tooñe ko sama mbokk moodu moodu yi dañuy yor soxna yàggul dara dal na ma dem eh, di liggéey ba war a retraité def vingt ans wala vingt cinq ñëw ne ah damay waaj a retraité léegi indi soxna si ne nañ ma takkal sëy bi ndax tubaab bi dañ ma koy laaj ma ne ko yow lu tax ba nga ko takkee ñaar fukki at ak juróom wutoo woon kayit yi mu ne ah dama mañ diggante bi a ah, xam nga rek mën naa tàggoog man wala dara ma ne ko tàggoo suñ borom a ko yor nit ki mënta calculer liy ñëw suba ak ginnaaw suba nit da ngay gëm yàlla wala nga weddi ko waaye lii xew suba suñ boroom rek a ko xam nit nag li la yoon may danga koy def lay xew suba yàllaa ko xam am na sëy yoo xam ne nii binduñu ko fenn te amul ñetti weer tas am na sëy yuñ bind am mariage de musta sas loolu mbiru suñ borom la man saa suñ loolu laal tontu pour revenir ci question bi mhm. mooy mariage bi dafa am solo si ci succession bi mhm. parce que veuve bi un huitième moom mhm. pour mu jot ko ci tribunal bi foog mu indi kayitu mariage am loolu mënut ta ñàkk hmm. waaw dafa mel ne euh, imaam sëñ Mbàkke bëgg na àddu foofu euh, bëgg na àddu foofu ci wàllu ndono yi jërëjëf euh, président wax dëgg yàlla leer yi am na solo lool lool sax nag lu mat a déglu la xëy na lenn laa ci bëgg dool rek mooy am na ñuy ragal mariage ngir leneen mooy jàpp ne ni ñuy miraase ci tribunal dëppoo wut ak foofu jàpp naa ne ku fuy dem wuti kenn du la kenn du ci forcé masal nit ki mën naa lijjanti kayit yi ba jot ci alal ji dem ca kër ga mam ñëw miraas ko tribunal terewut loolu kon kon jàpp naa ne ñu ngi ragal jàpp ne ñu demee dañ koy miraase nu dëppoo wut ak charia te ñoom dañoo bëgg a tënk ci charia tribunal it yaakaar naa wut kenn ci ne faaw maa lay yow yaa fa yóbbu say dossier ñu miraasal waaye boo boo demee toog sa kër ne nañ ma ko def ni ko lislaam santaane mm-hmm. waaye nag li mu wax ne kayit bi mooy tax xaalis yi mën a génn mm-hmm. Mm-hmm. bu dee kër yu ñu yu ñu war a jële ci moomeel yëpp ci genn moomeel kayit bee tax mën a nekk kon kooku soxla nañ ko boo noppee nag ngeen toog ni ko lislaam bëggee bu leen neexee ngeen defe ko noonu loolu jàpp naa lu ci solo loo xam ne wax nii macha allah jërëjëf président am na solo lool waaw li li li imam wax laay préciser rek ci biir nuyoo bi xam nga maa ngi tudd sëñ Mourtala Bousso kon fokkin ma leeral ni loi loi Sénégal code de la famille bi ñu wax tey dafa am ñaari ordre de de de maanaam ordre de succession ñaari miraas yu ci nekk loolu fokk réew mi xam ko laaj nañ ma ko ba tàyyi ñu bari dañ jàpp ne bu ñëwee tribunal du miraasum l'islam tey nag dinaa leeral ne code de la famille bi ñu yor muy loi réew mi na leen leer na ñaari miraas moo ci am bu fekkee jullit moo faatu ay mbokkam ñëw ne jullit la miraasul islam bi ñuy miraas ci jumaa eh, jumaay Tuuba ji sëñ sëñ Abdourahmane di ko miraas mm-hmm. moom la ñuy miraase ci tribunal yi yëpp rawatina mbake moom mm-hmm. am naa ñaari xaat yi mm-hmm. yoo xam ne ni kenn ki seen mbokk la wax naa ko léegi sëñ Mourtala Bousso di ko nuyu au passage donc ñoom laay seqal miraas bi ni ñu naan un huitième bi eh, góor cërub ñaari jigéen mhm. noonu lañ koy miraase ba mu jeex takk dëppook lislaam mhm. bu dee nag koo xam du jullit mhm. ñu door a jël droit commun bi beneen ordre bi miraase ko loolu il faut ñu ràññale ko waaw ndax amoon na lëndëm lëndëm donc ñaari ordre la tey ba ci ba may bi may nekk Kolda amoon naa fa ñaari xaad yi man yàlla defal na ma taw tawfeex foo ma mas a dem ci tribunal yi may jiite damay am ay xaad am naa sens boobu ñaareel ba it eh, man sama jëm bopp xëy na ci daara laa yaroo mhm. damay laaj di gëstu mhm. léeg-léeg maak sama xaadi yi ñu xëccoo lu bari mhm. eh, ndax lépp xam-xam dafa yaatu donc pour tënkal leen daal ni bu dee jullit a faatu bu ñëwee ci tribunal dañ koy ate niñ koy atte ci shariha bu dee nag koo xam du jullit la am na miraas muñ ko beral moo xam ñu dul jullit ñoo ko moom loolu moom loi bi prévoir na ko waaw loolu laa bëggoon na ah, ok jërëjëf <laughs> jërëjëf président ah. moom kay euh, ñun am nañ chance daal président eh, président tribunal bi ñu am président imam la waaw euh, <laughs> macha allah xam naa li ñu desee ci ay minutes bëriwul ndax xam nga léegi waxtu timis yu jot bëgg war a ñëw ci sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno mi nga xam ne moo fi teewal daayira Muxaddamatul Xidma moom itam ñoom itam ñu am ci euh, rôle bu am solo waaye président nag bëggoon naa itam nga addu ci kii de certificat de divorce de nit ñu ni ñu wute certificat de mariage du ñu wute certificat de divorce de dañuy divorce rek daal di bàyyi noonu certificat de mariage ba di wéy dañ ci dellusiwaat de loolu waaw. waaw. waaw. waaw. boobu kay am naa ci cas yu bari. Ah, waaw boobu boobu moom am naa ci kaay yu bëri bu ñu paree PV moom faaw ñu ñu wax ji ok jërëjëf Sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno yow mi nga xam ne yaa jiite commission culturelle bu daayira Muxaddamatul Xidma am taxawaay bu mag ci kayit wi nga xam ne mooy attestation de mariage bi ngeen àndoon ko ak président doon ko dox lu mat ñaari at ci ginnaaw ba ren kayit wi nag laaj nag ay taxawaay mooy nag ay ay ay ay taxawaay yoo xam ne ci jumaay Tuuba nuñ ko fi jëfandikoo ndax sëy yi ñu fi takk ci jumaa ji rek moom la ñuy permettre ñooñu rek la ñuy permettre ñu am ko ak ndax yeneen jàkk yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ndax yaatal ngeen ko bañ mën a àgg ci ñoom maa ngi rafet lu baax teewaayu sëñ Abdul Xaadir Mbàkke moom sëñ Mahmoudan mi nga xam ne moo fi teewal yeneen imaam yi euh, moom itam imaam yi dëkk bi yëpp euh, ndax loolu itam da ngeen ko yaatal ba mën a àgg ci jàkk yi ndax lii dafa am solo am na solo trop loolu ban taxawaay la ci daara Muxaddamatul Xidma am yan charte la ko wuutal waaye tam ndax yaatal googu yéen koy bàyyi xel. jërëjëf macha allah jërëjëf El euh, Hadj Ablaye euh, jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane waaye jërëjëf président euh, Serigne Cheikh ñaan ci waxtaan wu am solo bi. Oh. jàpp naa ne ñi ñiy topp direct yi sax doyaluñ ci waxtaan wi. ngir mm. am gi solo. Mm. loolu nag moo tax daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul Serigne Afia ak secrétaire général bi Serigne Abdou Lahad Moutalib ñu waxtaanoon ak président tribunal bi ci xam lii ni mu amee solo. Mm-hmm. ak it ni ku diine laaje ak it jafe-jafe yi ci am ak njariñ li nga xam ne am na ko mm-hmm. tax lu mat ñaari at ñu convoqué woon fii mboolem ay borom xam-xam ak ay imam mm-hmm. ñi ci doon waxtaan waxtaan wu gudd wu yaatu woo xam ne jëmmi kayit wi rek mm-hmm. niñ koy tërale ñëw na fii ci jumaa ji ñu delloowaat ko commune euh, président tribunal joxe xalaatam imam yi ak borom xam-xam yi joxe seen xalaat bañ dëppoo ci ne nii la kayit wi war a mel loolu nag kon xool nañ ko ba mu dëppoo ak diine ndax fii lu ñu fi def lu nekk loolu lañ ciy jiital mu doon it lu amal njariñ nit ki ci wàllu ci wàllu àddinaam mhm. loolu moo tax daayiram xadimatul xidma euh, ni mu koy defee ci lépp loo xam ne euh, lu amal njariñ nit ki la ci diineem di ko jariñ mhm. fii ci jumaa ji ci ndigalul sëriñ bi nag Cheikh Amadou Mountakha moo ci jiitu ci lépp mhm. tàmbali nañ liggéey bi bi biñ ci dëppoo ba noppi depuis mois de janvier registres yi ñëw na registres yi ñëw na commune defar na ko ba indil ñu ko président tribunal Euh, dëppoo na ci wax ni mu ni war a demee. Mhm. ba fii ci jumaay Touba. Mhm. depuis mois de janvier képp bépp sëy boo xam ne takk nañ ko fi. Mhm. dañ koy arrêté mu des ci registre jumaa ji waaye am kayit wi nga xam ne moom lay présenté yóbbu ko mairie jafe-jafe ñu ci amoon léegi nii. Euh, ci ñi bëri doon ko dellu loolu. président leeral na ko kon këyit wi wala hmm. boolagul ci. Hmm. nga xam ne da koy joxe rek ñu defal la certificat de mariage direct. Hmm. am na accompagnement da ngay da nga koy accompagner ak ñaari seede. mooy kon loolu kon ñi ko doon laaj jëpp leer na. beneen bi it léeg am ñu fi ñëw ne dañoo bëgg ñu wutal ñu kayit wi. te fekk fasewuñ sëy bi foofu. loolu tamit daayira bi du ko nangul kenn. sëy bi imaam Serigne Afe wala Serigne Baara fase fii ci jumaa ji. ñooy sañ am kayit wi ñooy sañ a amee këyit wi. fii ci jumaa ji fii ci jumaa ji. te loolu tamit day fekk mu doon ci diir biñ ko tàmbali mhm, mhm. waaye du caagee ne sëy bu romboon diir biñ ko tàmbali lu jiitu ñuy am lii sëy buñ fi façon du ko am nga ñëw ñu bëgg ñu defal la du ko mhm, euh, waaye ñoom sëy bi ñu fas tamit lañ sañ a defal kayit wi ndax seen signature da ciy nekk seen kaas euh, da ciy nekk ñu xam ne imaam sëriñ Afee moo fas sëy bi wala imaam sëriñ sëriñ Baara noonu lay doxe fii bu ko defee këyit wi képp koo xam ne da ngay ñëw can euh, euh, gi suñ Mbàkke wax na ko léegi. Mm-hmm. Euh, rubu dinaar lay doon moom la ñu xayma toujours ci ni muy war doon ci CFA. Mm-hmm. nit ki di ko joxe. Mm-hmm. bindaale nañ ko ci kayit bi. nit ki noonu tamit kayit bi amul kenn ku ci joxe dara lu dul 1000 francs 1000 francs boo ñëwee. 1000 francs nga ci joxe. kon ni mu demee fii ci jumaay Tuubaa nag. incha allah fas nañ yéene. fii ci jataay bi moom buñ fi jógee jataay bi rek la ñoom xaar ak président mm-hmm. ngir information bi yaatu ci ci ci jullit yi mm-hmm. yaatu ci nit ñi mm-hmm. kon bépp jumaa boo xam ne soxla nga am lu mel nii danañ la jaarale ci yoon nga amee ko nii ko jumaa ju mag ji amee ñu jox la résiteur bi jox la kayit yi tegtal la fooy wute sa kase ak sa kase imam ak kase bi nga xam ne moom lay gi nga xam ne léegi sëy buñ fasati danañ ko mën a arrêter Euh, këyit woowu tamit valable comme bii ci juma ji di dellu ci ci mairie. macha allah di di dellu tribunal. macha allah ndax ndax ku ko soxla ku ko soxlawul yëpp ngeen koy wutal wala ku ko demandé rek ndax nit mën naa ñëw di fas si ab sëy fekk soxla soxlawu ko. bu dee ci jumaa ji nag moom. ku hmm. soxla ku soxlawul këyit bi ku ko soxlawul sëy buñ fi fas incha allah. dañ koy arrêté moom hmm. dañ koy arrêté bu noppee nag yaa xam ba xam da ngay wuti certificat de mariage wala dara waaye lii. Hmm. fàtte ne attestation mariage religieuse la waaw waaw bépp sëy buñ fi fase rek mm. dañ koy arrêté soob yàlla macha allah jërëjëf sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno xam naa ma jox kaddu gi sëñ imaam rek mu mu mu mu mu barkeelu ci ndax xam naa waxtu julli benn minute moo ñu desee mu nuyoo rek joxe appréciation ci waxtaan wi ak euh, ban taxawaay nag la ci imaam yi dëkk bi war a am ñu ñu war a tëj ok bisimilah alhamdulilah jërëjë ngeen jëf sant yàlla bu baax julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal bokk yi nga xam ne ñoom la ñu seqaloon jataay bi le modérateur sëñ Abdoulaye Diop sëñ imam Abdourahman sëñ Mbacke Abdourahman ak le président sëñ Cheikh Niang di leen nuyu bu baax di rafetlu bu baax jataay bi ak li fi jib ci xam-xam bu am njariñ boo xam ne jullit ñëpp mën nañ koo jariñoo muy loo xam ne euh, ci kàddu ilimaan yi lu ñu lu ñu yàkkamti woon la mhm. ndax day njëriñ loo xam ne euh, lu matale la te ni sëñ Abdourahman sëñ wàkk Abdourahman leerale sëy ni ko lislaam santaane ak président Mohamed ni mu leerale sëy ni ko. Euh, euh, euh, code de la famille la famille bi tënke mhm. booy xool day mel ne mhm. sart yi yëpp benn la mhm. loolu nag leeral gi lu am lu am am solo la ndax bari na ci ñoo xam ne xam wuñ ko woon noonu kon leeral gi nii waxtu wu ne day day day am njëriñ di sant bu baax ci jataay bi registre bi yi nga xam ne tudd nañ ko fi muy Mm, attestation bi de mariage bi mm-hmm. wala boog déclaration mm-hmm. looloo lu nit ñi soxla la mm-hmm. ndax ci jàkk yu bari lu jumaa yu bari nit ñi léeg dañuy ñëw di ko di ko sàkku fekk amaguñ ci yoon wuñ mën a jaar ba mën leen ko jox kon nag tey buñ buñ buñ bu ñu dee dox fekk ñaari at ñaari at ci gannaaw ñuy dox ba tey euh, muy mu mu nekk nii loolu lu ilimaan ñi di rafetlu la bu baax a baax. jërëjëf di leen sant bu baax jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh jërëjëf jërëjëf kon jërëjëf mel na ne xëy na waxtu wi tënk nañu dañ bëggoon a wax lépp yaatal ko ak président xam naa dinañ dellu siwaat sax ci moom ci beneen yoon ngir bari na yu ñu war a waxtaane ci wàllu euh, naissance yeeg yeneen yu ñu demee kon euh, sant nañ bu baax a baax président ci opportunité bi nga ñu may ñëw fii ak taxawaay bi nga def ci ci attestation de mariage bi ñu ngi la ciy sant bu baax a baax jéego ñu ci def ñaari at yaa ko ànd ak ñun macha allah taxawaay bi rafet na Euh, imam sëñ Mbàkke Abdu Rahmaan yow itam sant nañ bu baax a baax ci leeral yi ngi indi ci sëy bari na yu sew sew sew sew yoo xam ne tey leeral nga ko fii ñu baree bari man koo jëriñoo ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant imam sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke Mahmoudan mi fi teewal imam yi dëkk bi ñu ngi koy sant bu baax baax ci taxawaay bi di sant sëñ Abdul Ahad Bousso Thierno mi nga xam ne moo fi teewal daayira Muxaddamatul Xidma ti jiite commission culturelle yaakaar naa mbokk ñu doon seetaan yépp tey jëriñu nañ ci waxtaan wi njëriñ loo xamante ni macha allah Euh, jàpp nañ ne sax waxtaan wi war nañ koo wéyal ci yeneen i fànn yeneen i fànn kon jërë ngeen jëf ñi ngi taxawlu foofu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.